Ndiagne Diop moo jël lii def ko Bambilor ñu ci am mbégte ak kontaante goo xamante ne xam nan fi muy commencé waaye xaw na fu lay yem parce nag bu ko neexoon lii lépp du ko ci fekk waaye Ndiagne Diop mu ngi def ci dëkk bi liggéey boo xamante ne kenn xamul kenn manta ñun daal mbégte mi am ci ci marché bi kenn xamul sax mbégte mi nan la toll parce que marché bi yaatu na liggéey naka ak contentement goo xamante ne kenn xamul fu mu yem ñun ngeen job dañ koy ñaanal rek mo xam li mu bëgg yàlla na ko defal ci jey muhammad di sant borom marché bi ka defar yalla nak fi yalla yagal te mu wër lool njabotam wër ndax mom kat ku ko ñàkk di di nga ko wëri mom ngeen job ku ko ñàkk rek di nga ko wëri nu ngi sant bu baax ka ñaanal yalla yalla na fi te wir ni naka ngeen job commencé da yalla ko yeggale non rek di dem ba teew ngeen ngeen tok ngeen ba barkel yeen ñepp ngeen barkel ak ci barke Fallou man Baye Fall Ngagne Diop maa ñaan maa ñaanal Ngagne Diop yokku ca kaw ca kanam taw ba téye pouvoir bi si loxo man Baye Fall Ngagne Diop man maa ko kay ñaanal. sunu marché bi ñun kontaan nañ si kontaan nañ si ba si kanamu yàlla ndax bu daan taw fu nekk la ñuy daw si tali bi di dem si tali bi di ñëw waaye fee mën ngaa jaay ba ba wàcc am ndox du la laal dara du la laal marché bii nag njañ mi ko def ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yëkkati sa kaw a kaw. man de ba addina sosoo ba tey. 71 ba léegi ma jóg di jaay jën maa ngi gis marché bu ñuy doog a tappal ay ventilateur si biir màgget yoru tàngaay ku leen tappal ay ventilateur defar leen ay taabul ñun de njeñ la wax ñun daal njeñ joob la ñu wax man Ami Njaay day fukki at ak ñaar maa ngi fii jaay jën fii si Bambilor waaye man njeñ laa wax waaye nag noonu lay man a amee. njeñ Jóob daal sas nañu ñun jigéen ñi nag ñoo ci des ñoo ngi nii nag pare nañ pour liggéey. nan leen àndandoo nag liggéey bokk ndey bokku baay ñaanal Ndiaye Diop li muy yóotu yàlla na ci jotaat ci darajey Muhammad barki Serigne Fallou Mbacke Ndiaye Diop moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ñun daal kontaan nan bu wér a wér a wér wér a wér. marché bu bees bi liñ ca neex na ndax lépp luñ fa soxla rek def na ko fa def na fa ay robine def na fa ay wantiloo mu am na douche mu ngi nuy defaral ay sees nu toog xam nga mag moom boo ko defaree seet bu muy jaaxaan di toog rek noppal nga ka yal na ko yàlla may wér ak wér la mu yàgg fi loolu nag te wér nguuram gi yal na ci yàgg te wér ci kant ñun jàmm rek lañ koy ñaanal ñun waa Bambilor. yaatu na manqué wu dara lépp lépp lu ngelaw li ñu doon rey fii taataaye ndox yeeg loolu lépp suñu borom na ma loolu na comme ñu koy ñaanal yàlla jël ci sang-sang yi yal yàlla yokk ay xéewalam yokk gudd na ma awut yarama man bàyyi Fall ngeen jóg. politique wu ma sama xaal sama jaayam géej ak sama keccax bi moom rek moo a ñor. kila la ñor nag ñu defal la loo xame ni du yàq bagaas bagage kenn du ko sàcc ki la defal da koy sant ah ñu ngi koy sant bu baax ndax lan bu daan taw dañuy daw fu ne fu nekk ñu dem fa. kenn gënu ko ku mu fi gënul gënoo ko ñun de marché bii ñu nekk sax bu ñu fi bàyyi woon xàppi ndax fii mu toll fii nu ne ñu ngi mel ni ku ne sa biir marché ba defar naka sëkk ka def fii xeer. de fii suuf fii kenn mënu fi woon a toog waaye moo ko defar ba ñu man fee toog yal na yàlla dolli seen jàmm yokk leen sutura yéen ñi yor yëf yi sax yal na yàlla dolli seen jàmm uul du moroomu neew ndax dañuy dem toog kilim bi dinu upp am na sécurité man la faalewul te man maa ko bëgg sama bopp maa ngi daal sama dool nag waaw moom nii defoon maa kon faale nañ léegi ndax nga comme moo fi me ngañ lu ñu méttireeti rek ngañ fajal nañ ko dara métteetuñu ku ko nar a yàq yàlla na nga dee di dee di dee di dee rek kenn du la suul e ne doo dee petit dee garande dee rek ngay dee waaye njañ rek kenn du ko